ak mbaax rek moom moo ko mën de euh, président Bougane je pense que xanaa da nga rek moo tax mais tàgge boo gis am na jàppal diw te jàpp naa li nga fi war wax tey yow yaa ko war wax ndax yaa woote conférence de presse ñun dañu ñëw rek pour taxaw sa wet pour Sénégal xam ne ñun Sénégal rek moo ñu mës a tax yàgg naa wax ne.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 mooy convoqué wuñ leen woon pour bàyyi leen de mais dañoo gis ne sénégalais yi jóg nañ ils ont eu peur et ils ont reculé moo tax cette mobilisation là dafa war a tàmbali tey ba bañ fi jóge asalaamaaleykum ci Abdou bi nga xam moom nga def rafet bi dañ ko lool donc ñu ngi jox euh, kàddu gi Pape Djibril Fall bu ko defee.

ndax du un leader politique simplement mais dafa nekk koo xamante ni tamit une réalité une identité remarquable du secteur privé sénégalais di gërëm bu baax yeneen leader yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoom la ñu bokkal jotaay bi ni ko président Abdou Mbow waxee kàddu yu gàtt lay doon parce que dañoo ñëw pour déglu li nga xamante ni moom la ci sénégalais yëpp soutenir déglu ñeewantu ko ñi mu xam ak ñi mu xamul ñun am ci taxawaay boo xamante ni boobu moom moo ñu war ndax boo duggee politique xeex pour la dignité humaine soo ko noppee def bàyyil politique ak ak yelleefu doomu aadama soo ko noppee xeex ci politique bàyyil politique loolu moo tax képp koo xamante ni mos nañu ko noot ci réew mi taxaw nañ ci taxawaay bi ci war a taxaw y compris ñi nga xamante ni jàpp nañ ne tey ñoom ñoo war a noot askanu Sénégal wala les leaders politiques du Sénégal ce qui est peine c'est c' est inadmissible Sénégal Sénégalais yi duñ ko kon euh, kaddu yi may def dama koy def aussi en tant que leader politique mais aussi en tant que représentant mën naa représenter kuréel gi nga xamante ni ñoom la ñu bokk man ak président Bougane Gueye Dany mooy sàmm sa kaddu. ñàkk sàmm seen kàddu ñoom moo tax suñu jotaay bii am hmm. kon jotaay bi jotaay yu fàttali la te suñu borom moom moo wax ne day fàttali bu fekkee ne fàttali mën na jëriñ way gëm le rappel est pédagogique donc ñoom foog ñu fàttali leen donc loolu moo tax euh, mobilisation bi ñu gis démb ak tey du faibliru dafa war a gën a dëgër dafa war a gën a yëkkatiku dafa war a gën a taxaw tem ndax ñoom ñàkk duñ ñàkk sàmm seen kàddu moom moo tax tey ñu ne patt pattaaral ci suñu géej gi nga xam ay sëg la ci façon boo xamante ni daw na yaram patt pattaaral la ñu def ñemewuñ cee wax bëgguñu cee wax tey jii le pic du chômage bi nga xamante ni xale yi gën a ñàkk liggéey kenn xamuñu toll parce que on a un secteur privé boo xamante ni bëgguñu sax wax ak secteur privé bi wax naa ko démb créer to emploi waaye léegi da ngay tëj ñi créer emploi donc ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni président Bougane dina ci dellu si en tout cas ñoo koy manifester suñu soutien total. di ko wax ne c'est vrai que coalition yu bari am na Sénégal waaye suñu coalition nag moo yëngal pale bi. suñu coalition moo yëngal pale bi waaye coalition bi dafa dundalaat yaakaaru ndaw ñi dalal xelu mag ñi dugg ñu ci politique pour jaaxal.

pour jouer. La politique est une chose extrêmement sérieuse. Donc c'est l'avenir du pays dont il s'agit. Nous avons son avenir, mais politique et république, moi, une promesse républicaine qui voudrait que chaque génération vive mieux que la précédente. Nous avons mieux faire. Si nous avons rek bougan ak bopam ko tay ji dugu politique di tok fi amna sénégalais yo aujourd'hui ils ont choisi autre chose nous on a fait le choix difficile de renoncer à beaucoup de choses pour être en politique Nous ci pour ay poste nous ci ay privilège. privilèges waaye ñii nga xam sénégalais dañu am yaakaar ci le 24 mars indi leen ñii dañoo taxaw ci yàq réew mi dañoo taxaw ci toroxal nit ñi les nañ léegi le colonel le commissaire Cheikhna Keita mais pour des raisons humanitaires rek benn bés pas ko woon a def mais Dieu il a sacrifié combien d'années kooku xawma ko mosuma gisanteeg moom mais kooku ñaata ñaar est-ce que kooku li jël risque sol tenu pour défendre le Sénégal pour lutter contre la corruption la concussion mais bu fekkee ne sor bi lañu bëgg a teg ñi nga xamante dañu soloon tenu pour défendre seen réew mais kon jaratu ko kon sa vivre sa sa sa cette volonté commune de vivre ensemble amatul njëriñ donc ni ma waxee ci commissaire Cheikhna Keita noonu laa mën a waxee ci Ahmed Suzanne Camara ay tappale moom moo leen yóbbu ci kaso bi Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacke foofu laa jeexale moom moo doon wax naan nit ñi ku xajoowul seen bang bang matoo leen kilifa donc Bougane waxu fii Bougane waxul Bougane li mu def li mu wax defar la ci jubloon ak wane yoon ki nga xamante ni moom moo toog ca pale ba yëkkati kàddu yu rëy ngir déstabiliser li nga xamante ni faire sauter les de ce pays là il s'appelle Cheikh Oumar Diagne. dëgg la te tey te tey te tey kenn woowu waa Touba yëngatu nañ ba sonn waa Tivaouane yëngatu nañ ba sonn réew mi yëpp yëngatu nañ ba sonn Pape Amadou Sarr ba mu defee asaka ji Pape Amadou Sarr bi yoroon deer bi mu defee asaka ji président Macky Sall dama mais mon li qui wax ki quest wax kenn musu ko wax. ñu continuer donc et ça j'en appelle encore à la vigilance de la presse. La presse a un très grand rôle à jouer dans ce contexte-là. La presse n'a pas à être pour ou contre. Nous, nous, on vient du monde de la presse. On a été formé dans les grandes écoles. Donc, soyez du bon côté de l'histoire. Théophras Renaudot, le père s'entend du journalisme, daf avons wax que ñun notre rôle c'est pas d'être pour ou contre c'est de mettre l'épée dans la plaie donc soyez du côté soyez du côté du peuple donc je suis gërëm bi ñu conférence de presse Je suis invité wu la sax parce que c'est mooy suñu responsabilité Ben waay quand ils sont venus chercher les juifs je n'étais pas juif quand ils sont venus chercher les chrétiens je n'étais pas chrétien quand ils sont venus chercher les musulmans je n'étais pas musulman quand ils sont venus me chercher il n'y avait plus personne pour me défendre merci beaucoup s'il vous plaît pour amoon à ay yóbbante yoo xam ne président naa ko su ma ko président euh, la diaspora est ici représentée à travers Pape Gorengay, Ndiaye mi ngi suñu Pape Gorengay, Ndiaye mi ngi suñu ginnaaw Amadou Diop Carter rejoindre la grande coalition comme ce bopp.